salaamu alaikum salaamu alaikum mbokk alaikum salaamu alaykum Nous yépp ñu ngi di ñépp di euh, Facebook rapidement donc vidéo bi partagé len ko bu baaxa ñu wax des vraies choses quoi parce que Facebook gis légui distraction mo fi xaw bari donc foog ñu ñëw remettre les pendules à l'heure nit ñi nekkaat ci xeex bi. lolu mo upp solo parce que waji ji gis ñu koy may temps trop ci réseaux sociaux légui ni nit ñi ñu essentiel bi ci ay détails lañ nekk et ce n'est pas normal lutax euh, ñu don def ay live c'est pour défendre notre pays. pas pour nekk ci ay yenn débat yo xamanteni c'est de bas étage quoi donc partagez leen vidéo bi sama gars ñëpp jot ko ñu wax des vraies choses s'il vous plaît hein. direct bi tey Facebook lay amee ah ma leen may exclusivité bi bëggoon ngeen partager ko nag bu baax Birama maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di fi ziar ñëpp ñu fi nekk partager leen vidéo bi exclusivité Facebook jërëjëf Partager leen ko nag ah rapidement ñu mat les 500 personnes yu ñu koy démarrer ñu wax des vrais sujets Partager leen ko gaaw mu gaaw mu gaaw mu gaaw te moom bëgguma ñu yàgg rapidement dañoo war a yegg les 500 personnes à voir des vraies choses très bien donc euh, toujours par amour pour ça l'I, rek motax ñuy par amour pour ça lis voilà notre pays par amour pour ça ah, très bien nous wax des vraies choses des vraies choses qui intéressent le peuple partagez les partagez les Nous ñu honorer suñu drapeau notre pays xeexal ko motax ñu nekk ci réseaux sociaux yi ba leneen donc partagé leen ko mu yaatu jërëjëf di remercier waale supporteru KAYS foofu yépp ñi nekk ci YouTube tamit nekk ci Facebook bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax li ci ëpp ci chaîne YouTube bi lañuy nekk KAYS foofu TV di leen invité pour ngeen dem abonné wu ci chaîne YouTube bi KAYS foofu TV boo leen ma gisul lu bari loolu moo tax parce que ñu ngi ci chaîne YouTube bi KAYS foofu TV donc partagez-le sama gars ñu mot les 500 personnes ñu démarrer direct bi rapidement bala ñuy perdre plus de temps ñu wax ci essentiel bi hein la sénégalais yi wara xam ci nguru Macky Sall. voilà ñun nak suñu problème bi amuñu benn problème ak ay sénégalais ñun suñu problème bi yépp c'est contre Macky Sall yalla xam nako sénégalais yi xam nañ ko ñun suñu seul problème moy contre Macky Sall ñun suñu xex bi c'est contre Macky Sall. bu fekke amna yenen nit nak ñuy xex kay suuf lolu sen problème la lolu sen xex la man sama xex c'est contre Macky Sall Macky Sall moy sama adversaire ñi di commentaire di saga yépp awma lu may wax ak ñoom man sen bàyyi lay waxal Macky Sall ñu ku gaay ragal di tuddu man mom lay adresser sama xex bi donc man mom moy sama adversaire benen sénégalais nekul sama adversaire ben adversaire la am Macky Sall la tuddu voilà leneen yi yépp ay détail la donc partager len ko bu baax mu yaatu ñu wax ci Macky Sall man mom moy sama adversaire très bien mangi ngi gis partage di remercier waale bu baax a baax a ñu nek di partager vidéo bi bu baax mangi len di remercier bu baax yokkat len rek yokkat len légui ñu wax djouf sar dañ ko japp muy fen en flagrant délit yàgg naa leen wax ça fait un an ma leen dina sar fen kat la ça fait un an bi ma leen koy wax déjà partager ngeen ko 135 partage yokk len war nañ mat 400 partage euh, rapidement ñu démarrer direct bi wala 500 partage donc yokk un. partage combattant ñu ngi sont waye bu wax ak ñom ay wax yo xamanteni intéressé wu len rek ci partage donc ñun xex bu ñu xam ngeen ko contre Macky Sall la té xex nonu duñ ci changer très bien donc sama gars Diouf commencé wax Diouf Sar fenkat ça ne date pas d'aujourd'hui ça date de l'année dernière depuis ci vaccin Diouf di luma wax ci vaccin djouf sar Sarr génnwul defaat benen discours ne man lay contrer djouf sar ku meuna a fen la waye dañ ko japp la main dans le sac muy fen dina len won legui legui toute preuve yépp à l'appui nak preuve à l'appui xam ngeen rek comme ñun ñu ko yàgg defee soskat yi dinañ yàgg sos waye ñun suñu démarche yi du mës changer suñu démarche c'est wax prouver ko avec soit des articles ou euh, ay sources yo xamanteni dañ leen koy jox pour ngeen dem vérifier donc démarche bobu lañu yag yàgg entamé bu ñu Facebook donc euh, ñuy sos yag dinañ yag sos am yenen information yo xamanteni source c'est confidentiel duñ ko mëna a donc yooyu duñ leen mëna wax kan moo ko wax parce que pour la sécurité des personnes qui nous informent mënuñu révéler yenen source mais sinon tay lu ñuy wax yépp dinañ leen jox source yi ngeen dem vérifier ko sen bopp hein très bien donc partagez waat leen ko mu yaatu sama gars maa ngi gis nombre de partage yu nu muy yéegee jërëjëf combattant xam naa ni bàyyoo leen combat bi de bu leen nekk ci distraction yi sama gars yi benn adversaire lañ am mooy Macky Sall lépp lu mu leen indil waxu Adji Sarr ku leen ko waxati bu leen ko faale dem leen seen yoon dépassé nañ débat boobu ku fi nekkati di def direct di leen wax waxu aji saar waxu kii bu leen ko faale ñun dépassé nañ lool ñun lu ñuy dàqee Macky Sall suñu dëkk ñun ci loolu lañ nekk di concentré wu ay waxu Adji Sarr yeeg ay ñun nekkuñu ci yooyu

partagé leen ko bu baax donc mm, Diouf Sarr mu ngi fen Macky Sall mu ngi fen te vaccin bu ñu leen di andil dinaa leen wax euh, français yi dañoo war a génne vaccin ñu ne fii ba début d' année deux mille vingt mais sénégalais yi ñoo ko nar a testé ñoom ñoo nar a nekk ko cobaye yu koy commencé. information bobu tamit il fallait que ma jox leen ko français yi dee nañ dañuy génne seen propre vaccin ban moment lañ koy génne début mois de année 2022 le français yi di génne sen vaccin boobu bo xamné français ñoo ko créé léegi institut Pasteur lu muy né sénégalais yi dañuy commencer créer sen propre vaccin lolu sénégalais yi ñoo ciy jiitu sénégalais lañ ci tester ba paré xol ndax di ngeen décédé yéen ñëpp bo leen décédé wol ñu ñoo commencer ko appliquer ci français

Euh, lan mooy dëgg bi donc bu leen ko laal institut Pasteur lu muy jëndee noonu Sénégal créé ko France ko créé français yi balaa ñu leen koy appliqué fii Sénégal lañ koy commenté testé yéen ñëpp ngeen jàll ci ngeen dee wala ngeen dund criminel moo nekk ci suñu dëkk bi wax naa leen ko Macky Sall du nit criminel bu mag la moom day ñëw jël suñu population def leen ko cobaye ci façon vaccin bu munti doon ci ñun lañ koy testé yéen a ngi gis AstraZeneca bi suspendre nañ ko ci àdduna bi ñu ngi koy testé ci sénégalais Eh, Johnson et Johnson supprimé nañ ko suspendre nañ ko ci àdduna bi ñu ngi noonu di ko continuer testé africain Macky Sall criminel la Macky Sall moo nekk di rey sénégalais yi du benn feebar moo nekk di rey sénégalais te maa ngi wax ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko sëkkuñu waxu vaccin ak yow Ousmane Sonko partagé leen ma vidéo bi Ousmane Sonko jot ko bëgg nañ la ba fu bëgg yem sëkkuñu affaire de vaccin ak yow bu si jàppale Macky Sall sëkkuñu affaire de vaccin ak yow on l'assume Macky Sall de defal communication Macky Sall de la communication Macky Sall buñ la ci pour ne suba responsable parce que le gouvernement et l'état yu rendre compte par rapport à crime de masse bu contre les populations donc ce Ousmane Sonko suba nga ce ci. donc avons affaire de vaccin ce que nous avons ak yow du responsabilité de question de responsable non Le gouvernement a ñu jël ci responsabilité li nek ci biir affaire yi waxuñu la ko te Ousmane Sonko dina la yëgal ben affaire dans tous les pays du monde il y a des statistiques sur nombre de personnes yu nek di dé ci ñakku bi sauf le Sénégal Ousmane Sonko donné yo joxé donné bobu bokku ci. je défie quiconque mu gënël ma ci discours Ousmane Sonko donné yo xamanteni ñu ngi wax ñaata sénégalais ñakku ñaata la ñak bi ray ci ay doomu Sénégal ci Sénégal ma ngi défier quiconque gënël leen ma donné yooyu Ousmane Sonko donné yooyu médecin yi joxuñu lako gars mettre ñu en place ben système de veille bo xamanteni ku ñu ñak mu décédé dinañ ko compter ci nombre de pertes ñu am à cause du vaccin. amuñu ko donc buñ la ci duggal Ousmane Sonko Macky Sall truand la Macky Sall truand la criminel la dafa nek di ray sénégalais ba paré yow dañ la ci bëgg communiquer lo en faveur du gouvernement bu ci communiquer na gaay yi observer mesures barrières yi nañ sol sen masque waye ay projet ñàkku Ousmane Sonko bu la ci kenn prononcer lo tu n'es pas le président de la république boo comme président de la république une responsabilité sa responsabilité personnelle nga mun ko engager si ay affaires yoo xamante ni maîtriser nga ko waaye lu nekk di xew seen nouvel ordre mondial de politique bu ñuy rey askan bi buñ la ci dugal Ousmane Sonko ku la bëgg nag mooy wax ak yow ku la bëgg mooy wax ak yow sëkkuñu affaire de vaccin ak yow waxal ci lo xamanteni ñun lolu mo yàgg tax ñun ñu le bul dugg ci affaire de vaccin sëkkuñu lolu ak yow je ne masse pas mes mots ni en faveur de Sonko ni en faveur de Macky Sall man sama deug bi ñep la koy adressé sëkkuñu vaccin ak yow Ousmane Sonko ko ak yow ko ak yow voilà légui fi soignant yaangi fi di génn ne duñu jël poison Macron ay soignant ñoo xamanteni en contact ak maladie en permanence ñu ne ñu ñakku ñu ñoo bañ ay médecin ay infirmier ñu ne ñom ñoo bañ duñu ñàkku yow senegal yeen ngeen ne non li ni amul benn doute bu ci nekk fii nii soignant France yi nee nañ duñ ko jël lu tax soignant yi bañ ko soignant yi buñ ko bañee lan ñun pauvre ñun pauvre citoyen nak am nañ droit bañ ko tamit bu len ko jël Macky Sall daf leen di rey farm admettre ñu ko fii nii Europe Ben vaccin chinois n'est pas en opération pas en circulation ici en France ni aux États-Unis ni en Europe amul ben deux Européens bo xamanteni vaccin chinois bi mu ngi fa nek en circulation amul man ma len ko wax dem len vérifier djiko ko dañ leen bëgg a ay cobay lañ len nek di def en complicité ak Macky Sall Macky Sall nek di ray sénégalais chaque jour ñu yóbbu ay nit ci morgue ñuy fen si chiffres dina len wax djouf sar fen bu mu fen bañu japp ko ba pare yéen sama gars képp ku ma woo bu ma nekkee en direct bu ma paree dinaa la bloqué doo amati possibilité boo xamante ni di ma mën a wooti ci sa àdduna dama leen koy wax rek mu leer parce que am na nit ñoo xamante ni duñ la woo tànk suñu la en direct képp ku ma woo ma nekkati ci Facebook en direct waxuma ibi naa ligne bi pour nit ñuy dugg képp ku ma woo dinaa la bloqué à vie ça y a pas de débat parce que li may expliqué ni waxuma leen woote leen saa yu ma naree permettre ñuy woote damay ne woote leen ibi naa ligne bi na nit ñuy woote bàyyi leen ma introduire ma développer sama li may développer bu leen ma dag c'est très important li may wax. donc ma ngi len di wax ben affaire waaw très bien merci mu les patriotes ont entendu merci bu leen dugal Ousmane songo ci ay affaire de vaccin képp ku koy def responsabilité personnelle am la na ko dem def Ousmane songo bu ko bëggee def na dem ñakku ji man duma am li ma koy wax. kenen bu ko bëggee def nako dem mais bu fi kenn jël engagement de da ngay pousse population bi ci lo xamante ni xamoo leen tenant ak aboutissant xamoo leen ko kenn maîtriser wu ko ci yéen Macky Sall politique nouvelle ordre mondial la nekk di dawal Sénégal ñun bu fekkee on est à risque sax bu ñu ñàkkuwee fi on est moins risqué que ñi nekk Afrique dama leen di expliquer lu leer ñun de bu dee on est ñun ñu ngi jël risque sax suñu risque yi c'est moins grave que yéen seen risque ngeen nekk di jël Sénégal lu leer laa leen di expliquer képp ku ko weddi na dem laajte ndax Johnson et Johnson interdiruñu ko États-Unis na dem laajte ndax AstraZeneca bu leen Macky Sall nekk di ñàkk interdiruñu ko France yéen loolu ngeen nekk di ñàkku na dem laajte ndax vaccin chinois bi mu ngi daw en France en Europe wala aux États-Unis képp ku ko bëgg a weddi demal vérifier trois affaires yu ma la wax ba pare ñu teg loo xamante ni képp ko am conséquence ci vaccin yi dinañ la mun a génneel chiffre ko ñu xam ñaata nit a ci dee xam ne ñaata nit a ci am effet effet secondaire yu grave loolu yépp amul Sénégal ay nit dañuy ñàkku ba pare ñoom ñooy dem fajaat seen bopp bu ñu feebaree état bi du leen jël en charge benn yoon boo leen feebaree dañu leen di signaloo benn papier boo xamante ni dañu leen dina ne boo leen ci deewee yéen seen ay responsabilité bopp ngeen jël bi ngeen di dem ñàkku Donk, amoul ken nou kwa kwa menteni, efo seconder bou grav, etan Senegal fadle. Denk lè baye nge desede. Lou lèr la lènde esplike. Donk, Ousmane Songo boum ti pousse ken, maki sa nè dje responsabilite mdèm pousse si popilasyon. Ousmane Songo, lolo sekou nyou kwa kyo. Boul nyou wak afer ou vaksen. Yo, bò kwa wakon sa, bò manè an kaye sof, arète lèn diskouri. Ousmane Songo, bò mò kon nyanon sa, mèl mò kontine wak, paske li se la vi de Senegalè ki anje, sekou du Ousmane Sonko je wax nan la ci communiquer ça c'est entre mon peuple l'amour que j'ai pour ce drapeau là motax may wax l'amour que j'ai pour cette population là motax may wax très bien donc <clears throat> légui dama bëgg euh, ngeen ngeen xam partager waat len sama gars sama yaram commencé na tang actuellement war nañ egg ay 600 partages wala 800 partages yokku len partager parce que nous, on parle des vraies choses vous comprenez euh, peuple bi lu mu wara euh, la population sur ci réseaux sociaux yi gis naa ni commencé na bëri nit yaa ngi découragé ci réseaux sociaux parce que mënatuñu xam benn information ay wax ay xas ay ñun yooyu indiwuñu ci réseaux sociaux nous ñun lu ñu indi ci réseaux sociaux yi mooy kafir kaafiru na bu nek ci suñu nguur gi nga xamanteni lor na sénégalais yépp ñun loolu mooy suñu xeex voilà partagé waat leen vidéo bi ñu continuer légui Diouf sa dañ ko japp muy fen ah, depuis daaw 1000 milliards 1000 milliards documents Macky dafa jël rapport ci euh, <laughs> euh, gérer euh, Covid 19 bi 1000 milliards waye rapport c'est pas public Macky si tu es animé d'une bonne foi pourquoi tu ne publies pas ces rapports là lan motax Macky rapport tégal ko ci table duñ publier médias yi ni ñi xam lan rapport ça montre la mauvaise foi de cet homme Macky Sall un criminel un chien boo xam ne que dara Sénégal Sénégal le dara Le lu muy def c'est pour xam kan lay indil problème kan la dul indil problème kan lay protéger kan la dul protéger moo tax il demander des rapports il ne demande pas des rapports pour transparence c'est un idiot boo dit que le Sénégal le suñu ay institutions gëmul transparence C'est le premier corrompu de notre pays moi je le dis haut et fort c'est le premier corrompu de la République du Sénégal jël banquier def ko ministre de la santé Diouf Sarr du médecin ah, banquier la dem leen vérifier ji ko Diouf Sarr c'est un banquier xaalis bu ñoom Macky Sall nekk di détourné ci période Covid 19 bi yépp Diouf Sarr moo koy pensé c'est un banquier Diouf Sarr deful médecin, du médecin banquier la nu ñuy sàccee xaalisu Covid 19 bi Diouf Sarr moo tax ñu bàyyi ko lu leer laa leen di expliquer moom ak Macky Sall ñoom ñooy jël seen cerveau yi interconnecté ko sàcc milliards u Sénégalais c'est un banquier Diouf sar buy wax ce n'est pas un médecin qui parle ce n'est pas un scientifique qui parle c'est un banquier qui parle koo xamante ni compter xaalis ak sàcc xaalis loolu moo ko fa bàyyi na porter plainte nag Diouf Sar na nga porter plainte si tu te sens diffamé léegi dama leen di wax Diouf Sar fan lañ ko coincé naa leen wax Diouf sar fan lañ ko jàppee fan yi yokk leen partage sama gars yi parce que sama yaram bu tàngee ni, boo leen partagé wul rek euh, day wàccee sama xadar bi quoi Partager leen ko bu ma gisee ngeen partagé ko lu bëri rek dinaa sawar wax leen lu bëri loo xamante ni mu ngi en face de moi actuellement donc yokkal yokk leen ko ci 500 500 personnes yi yokk leen ko ci 500 personnes yi ñu atteindre ko rapidement le temps que ma trouver leen information yi. Diouf ce n'est pas un ce n'est pas ce n'est pas un médecin dem leen vérifier dit ko képp ku ko direct a rek demal vérifier lan mooy profession Diouf Sarr c'est un banquier c'est un banquier qui compte les milliards bu ñu war a ci affaire bi sàcc nañu xaliss yëpp ñu jox Sénégal ci affaire de feebar bi lu nekk ñu joy Sénégal chiffre yokku nañ mënatuñu kii gars yi jox ko len ay milliards banque mondiale jox len. initiative COVAX jox len. mais gaay di len jox xaliss yu dul jeex ñii lu ñu encaissé ci ay milliards ci période Covid bii nii Sénégal mosu ko jot ci xaalis moo tax Macky Sall teg fa yi boo xamante ni moom moo koy luubal alalu réew mi. saa ñu waree def visite ci hôpital yi ñu dem loué ay oxygène indi ko won ko sénégalais ci kanamu écran dañuy loué ay oxygène dañuy fenn hôpital yi amul dara ba pare. Macky Sall euh, propagande bu mu def fan ci hôpital dinaa leen won documentaire boo xamante ni tubaab yi ñoo ko def bu Macky Sall defee visitom ba pare ci hôpital bi fenn ci seen kanamu RTS ba pare tubaab yi jaar ci ginnaawam def ay documentaire ngeen gis Macky Sall fenkat bu mag la moo tax nee na fan yi daf may waaj a accusé soit dama jaay drogue walla dañ ma jàpp ak yamba ñu tëj ma France euh, dafa yondi ay nit pour ñu fexe wala sax ay policiers yoo xamante ni dañ may demander sama ay papier ñu fuye ma jël yamba wala drogue dugal ko sama poche ne kay sof japp nañ ko ak drogue ndeke boy bi drogue la donc ma ngi ci wax sénégalais yépp ni kay sof du tux cigarette kay sof du drogue wu kay sof du naan man yooyu yépp jegewuma ko bés boo leen déggee jàpp nañ ma fi complot la boo xamante ni Macky Sall dafa yóndi ay nit pour ñu def ko contre man fii ni France bu bu ma ay policier palpé ñu dugal dara sama poche man jaayuma drogue tuxuma yàmbaa tuxuma cigarette naanuma mandewuma ma loolu yépp defuma ci dara donc li ma koy vilipande ci réseau sociaux yi la bëgg a mu ngi uti pexe boo xamante ni dina ma ci saltel voilà léegi xaar ma won leen Diouf Sarr fu ñu ko jàppee professeur Seydi moo ko vilipande professeur Seydi moo wax Diouf Sarr indi corporation hôpital bi yëpp ñuy dal ci kaw euh, professeur Seydi voilà ah leen ma liiral leen ko léegi ngeen dégg ñun luñ leen luñ leen di wax lu nekk dinañ leen jox source bi boo leen ko bëggee vérifier voilà dinañ leen jox source bi ah xool sama appareil yëpp dañ koy jaxase saa yu ma bëggee indil leen ay information ñu jaxase sama appareil yëpp Macky Sall day utiliser logiciel Pegasus contre Kaysof voilà donc dafa am ay yeneen antivirus yu ma installé ma gis ay affaire yoo xamante ni man mosuma leen dugal sama téléphone ay antivirus bi di ko signaler donc moi aussi je suis sous Pegasus man tamit def ma Pegasus mais grave. parce que ay criminel lañ ko sëkkal mais il y a un problème ça marche pas xaar c'est attends c'est attends Il leen dinañ ko jàpp dañuy jéem a bloqué sama réseau bi nii waaye am na feneen koy jaar léegi wesh c'est quoi le problème bah oui c'est bon frère léegi Diouf Sarr fii lañ ko jàppee gars leen partage leen partage euh, Diouf Sarr ak professeur Seydi ndeysaan ah professeur Seydi moo ko voilà donc professeur Seydi bu mu ko vilipande Diouf Sarr gis si boppam ko ah, voilà, voilà. Donc, Diouf pris en flagrant délit. Voilà. Diouf pris en flagrant délit. Donc, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye djoufsar vient d'être pris en flagrant délit de mensonge. Comment c'est au côté. Yag, Momak Makissal, mensonge rec, chaque jour. Demain, lundi lire après, euh, qui euh, est ressources ressources ressources pour nous vérifier donc le ministre de la santé et de l'action sociale Diouf Sarr vient d'être pris en flagrant délit de mensonge lui est un directeur d'hôpital complice dégg directeur hospitalier est complice lañu ci qui ay directeur d'hôpital, bi qui se tait sur la situation alarmante dans nos centres de traitement des épidémies déglu leen de nee Diouf Sarr nous avons jàpp muy directeur d'hôpital ci situation bo xamanteni hôpital yi ñu koy ñu ngi ñu ci nekk actuellement moment bi may wax ak yéen yokku leen partager buñ ko signaler ngeen yokku kër yi parce que dañuy yeew yegg ba 400 et quelque ñu commencé waat ko signaler, ñu wàccaat donc da ngeen di bës bouton kër bi bu baax ngeen yokk partager parce que ñun kenn téré waru ñu téré suñu droit à la communication ñom ñi sàcc milliards peuple bi donc yeen waro leen seetaan lolu vous devez partager ça voilà ñun on a notre droit à la résistance ñun on est en train de résister c'est notre droit le plus absolu, le droit à la résistance. Face à un État criminel, un État kleptomane, un État menteur, mythomane, avec à sa tête un des plus grands mythomanes de la République du Sénégal, Macky Sall. Donc, Légui, vient d'être pris la main dans le sac. Et c'est un reportage de nos confrères français, et français, chaque fois, bu dara ray xew Sénégal ay français ñoo ñu ko yëgal wala BBC wala leneen moo tax ma naan journaliste sénégalais. yi vous faites de la masturbation intellectuelle keroog dama ko wax benn pseudo journaliste génn attaqué ma ne man ay fake news lay joxe. bon man duma wax sur euh, du sensationnel ah loo xamante ni de buzz sur du buzz moi je donne des informations à chaque fois que je fais un direct sur Facebook les gens savent sur quoi débattre après nous, développer aussi cette chaîne Facebook développer aussi cette chaîne YouTube donc je viens euh, Andy, ben ben plus-value hein, dans la communication sur les réseaux sociaux donc euh, man je ne fais pas dans le buzz je je donne les informations pour que yi exploiter ok mais vous vous faites de la masturbation intellectuelle vous vous branlez intellectuellement parlant en refusant de sortir les vraies informations au peuple donc gars, nous, ne jouons ça dans le voilà donc nous sommes des journalistes, des confrères français nous sommes autorisés pour nous pénétrer dans l'hôpital fan. Les sénégalais sax interdits. leen di interdire sénégalais ils leen di interdire pour nous, mais ils tubaab la ñuy jox autorisation bi gis mauvaise foi au Macky Sall donc bu vous sax parce qu'il y a quelques journalistes qui sont au moins pour le avec le peuple quoi malgré que c'est une corporation de pourriture il y a des braves soldats qui quand même ils sont du côté du peuple ça il faut l'admettre par contre ci corporation bi ñooñu les rares personnes qui ont ni bu ñu bëggoon sax dem ci hôpital yi def enquête dañ leen koy tere mais ay français lañ koy permettre pour ay français def ko dégg ngeen nee nañu ce sont nos confrères français qui ont été autorisés à pénétrer dans les coulisses de l'hôpital FAN qui démontrent toute la spirale de mensonges mis en place par le ministre de la Santé et plusieurs de ses services pour masquer la vérité aux Sénégalais. Scandale Partagez la vidéo, Bimoussoré li ngeen ko partagé rek xeb leen ko partagé leen ko mu sore scandale ay français comme BBC nu mu ñëwee defal ñu révélation scandaleuse boobu bii beneen média français moo ñëw dugg ci biir hôpital fan. ñu ne wuya yooyu ndeke ñi lu ñuy wax ci seen télé RTS yëpp ay fen la chaque jour matin midi soir pour tromper population bi donc benn média français lañu permettre pour mu def documentaire boobu tout a commencé au début du mois de juillet déglu leen de nee nañ lépp ci mois de juillet bi le vendredi 2 juillet lors de la réunion du comité national de gestion des épidémies le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN, le professeur Moussa Seydi lançait une alerte donc Moussa Seydi devait lancer alerte professeur Moussa Seydi nous avons un problème d'oxygène Kogou, normalement ce n'est pas un politicien mais même ça, le pousse à faire de la politique normalement les médecins ne sont pas des politiciens mais si lu est habillé état bi a daf ci joxe information mais ils ont failli le tuer pour ça pourquoi tu as parlé de ça ça ça met à nu le complot bu ñu nekkee ci hôpital pourquoi tu vas parler de ça Hein Raï est habillé, bi ba moment où xamante ni content. kontaan nga glisser ci affaire boo il a il s'est fait pipi dessus bon Diouf il s'est fait pipi dessus il s'est nettoyé après ça bon oui c'est ça la vérité donc nous, avons fii hmm, nee Nous hôpital yi amuñu oxygène hôpital oxygène nous n'avons pas nous avons un problème d'oxygène au niveau des CTE et cela peut être fatal pour les malades donc avons un problème d'oxygène pour nous am ci hôpital yi mun pas ça veut dire c'est grave ça veut dire que là il incrimine directement la il indexe la responsabilité de Diouf ni Diouf Sarr assassin la mu ngi reylu nit ñi ci hôpital bi ci 7 milliards yu moy Oui, oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui, il indexe la responsabilité de Diouf en tant que assassin de sénégalais yo xamanteni ñu ngi dem ci hôpital yi fekk ñu fa oxygène yok leen partage yi li ngeen ko partage lu ne ko oui oui oui monter la fête monter la température bës leen bouton cœur yi ma gis ma contane ma xamné xex kat yaangi ci réseaux sociaux yi ba légui leen bouton cœur yi ma gis jërëjëf yokkaat leen yokkaat leen voilà quand on vient là leur fesse danse d'une dombolo parce qu'ils savent que hein y a du lourd qui va sortir bon on écoute encore nee cela peut être fatal pour les malades je le dis depuis plusieurs mois ah professeur Seydi mooy wax nee na loolu maa ngi koy jooy depuis ay un CTE ne doit pas avoir une seule centrale d'oxygène nee na am CTE warul am benn centrale oxygène kese il faut toujours deux centrales d'oxygène mais chaque fois il faut avoir au minimum deux centrales d'oxygène il faut toujours deux centrales d'oxygène au niveau du service des maladies infectieuses nous avons trois plus un backup pour les bouteilles d'oxygène parce qu'une centrale peut tomber en panne et là nous pouvons perdre des malades ça veut dire que là il dit que à cause du Diouf directement mais nous perdons perdre des malades ci hôpitaux donc Diouf est responsable du nombre de morts qu'on est en train de noter dans les hôpitaux sénégalais. Parce que tout tombe en panne au Sénégal. Matériel Yep yu York, c'est des matériels en fin de vie Wow, tout bi lu ñu utiliser nous, français et nous Nous ko surfacturé population sénégalaise bi avons milliards lañ matériel yu York yor ci hôpital yep, matériel en fin de vie oui je vous le confirme oui oui donc dans la foulée le ministre de la santé et de l'action sociale organise une riposte donc nous, ngi xeex nous biir ñu ngi Le professeur Seydi bu mu jour loolu Diouf Sarr nelawatul mu ngi naan maudit soit le professeur Seydi qui a fait cette révélation au peuple sénégalais maudit soit le professeur Seydi pourquoi il a parlé de ça bon sar, depuis Bobo, il est il est il est il est dans les tourments donc le ministre de la santé et de l'action sociale organise une riposte pour étouffer ce nouveau scandale révélé par le professeur Seydi donc djouf Sarr woo ay nitom ñëpp ne leen musiba amna professeur Seydi wax na fi musiba boo xamanteni ni maana day tali sénégalais buñ ko xamé rek ñun am nañ problème kay sof moy ñew yégal leen ko fi ci réseaux sociaux parce que journalistes yi defoo leen seen liggéey donc sama gars yi partagé leen li mu yaatu mu ne <clears throat> il se lance dans une campagne de dénigrement mu commencé di sosal professeur Seydi di ko sosal parce que deug bu mu wax nii bugutoon mu fait mu commencé social professeur Seydi sur les ondes des radios et de télévision contre les propos du spécialiste qui dénonce un manque d'oxygène radio radio radio ya télé yépp des propagande contre professeur Seydi di que der professeur Seydi di Il dénigrer a social social puisque ñom loolu moy seen liggéey kay Fof bu len waxé dëgg ñu sosal kay Fof ne boy bi day fenn bu len dégglu ay live am lepp lu muy wax ay fake news la bu len ko déglooti donc ils font la même chose professeur Seydi tamit genn na wax dëgg ñu koy sosal diko dénigrer di fenn kat la du médecin xamul dara ñu ngi ni diko ko sosal moom tamit képp ku genn wax dara contre ñom dañ lay sosal ci ci ci seen radio télévision ak ci réseaux sociaux ça a toujours été leur pratique ils sont allergiques à la vérité ils n'aiment pas la vérité donc c'est des mythomanes nés voilà donc ñom ñu ngi fenn di sos comme niñ may sosalé man kay sof mais yàgg naa ci tàmm naa ko légui il se lance dans une campagne de dénigrement sur les ondes des radios et de télévision contre les propos du spécialiste qui dénonce un manque d'oxygène alors notre ministre fonce vers la presse yamul ci lolu de mu daw ci ci journalistes des masturbateurs intellectuels yu may tuddu non mu daw tamit ci ñono mais il n'est pas seul. Il demande aussi au directeur de l'hôpital Fan, dans lequel exerce le professeur Seydi, de démentir. nee directeur hôpital bi na démentir professeur Seydi lu le wax donc directeur hôpital bi sait que ni professeur Seydi spécialiste la faux, foofu lay liggéey lu wax mais Diouf Sarr nee pas ko génnal nga il ko que ne lu mu wax du dëgg sinon dama lay donc Diouf Sarr c'est un assassin il xamante en ba pare day day chantage ay c'est un criminel ce gars-là depuis daw mang len koy wax depuis daw ku rappeler sama live yu ma doon def ci vaccin depuis daw mang len don wax djouf Sarr criminel bu mag la fenkat le sàcc la bo len ko rappeler depuis daw mang len koy wax ren encore maa ngi nit di len wax la même chose parce que nit wax deug nga ne sax directeur hôpital bi na génn weddi ko mais on n'a pas le droit de dire la vérité dans ce pays-là on doit masquer la vérité au peuple lepp dafa wara nek lo xamanteni ñun par accident lañ ko wara a ci dëkk bi par hasard lañ ko wara a peuple bi amul droit à une information bo xamanteni information bu fiable Ce lu dul ñun lu ñuy wax ci chaîne chaîne YouTube bi euh, sama chaîne YouTube bi of TV wala ci sama page Facebook bi nit ñi amuñu droit xam Le Sénégal c'est de l'or dire la vérité c'est distribuer de l'or au peuple mais c'est fou on est dans un pays où on marche sur la tête donc jeexul sans vouloir polémiquer le directeur de l'hôpital FAN dément le professeur Sidi. directeur hôpital l'hôpital Fan, def lu Djouf Sar bëgg mu defal Diouf li Il a mu démentir professeur Sidi. sans vouloir polémiquer je dis que nos hôpitaux n'ont pas de problème d'oxygène Le n'y a documentaire tubaab bi gis ngeen Djouf Sar dafa FAN directeur hôpital bi fenn tubaab yi ñëw xawi seen sutura dinaa leen documentaire tubaab C'est sama gars li waron fait na fekk ñu eggoon 1000 personnes donc partagez vous vidéo c'est tellement important li wax que tout le peuple sénégalais devait l'entendre normalement vous ngeen ko partager ay 1500 partages 2000 partages parce que ñu fi ay Congo ça nek fi di wax ay waxu kasaw kasaw lu ñuy wax ni c'est d'intérêt public voilà donc da ngeen ko wara partager partager wat len ko hmm? donc <coughs> directeur hôpital bi nous néna na hôpital Sénégal amul un problème oxygène il y a toujours une machine qui marche mais également une sorte de backup, de sorte que même s'il y avait une machine ou que celle-ci tombe en panne, le système de backup permettrait d'alimenter les malades en oxygène. Bon. Directeur hôpital bi génn na weddi chaque jour les sénégalais dem ci hôpital bi ñu ne la oxygène frère euh, footballeur bi Théo Diagne euh, dafa hôpital ba euh, footballeur bobu décédé ndeysaan suñu frère bi dafa dem ci hôpital bi ñu ne oxygène ça fait deux jours bu mu décédé hein dafa dem ci hôpital bi ñu ne ko oxygène amul loolu rek weddi na Diouf Sarr dafa dem ci hôpital bi ñu ne ko fii oxygène amul fi Diouf Sarr di fen ne docteur euh, kii hôpital bi tamit fen voilà donc <clears throat> le ministre aussi a démenti le professeur Seydi bu directeur hôpital bi démentiré Seydi juuf <laughs> Sarr tamit ñëw yokkaat ci dëgg kenn waru ko wax Sénégal c'est un crime quand tu dis la vérité dañ la wara ray wala ñu toroxal la fo nek ci Europe ñu jëm problème donc c'est le gouvernement de Macky Sall il fonctionne par la terreur par le terrorisme c'est un gouvernement terroriste voilà man wax leen ko wax Macky Sall a un gouvernement terroriste Macky Sall même a été le Sénégal est devenu un état terroriste Il terroriser des citoyens de notre pays parce que ils se battent pour que deug bi ñep xam ko donc c'est un gouvernement c'est un état terroriste donc Diouf Sar, le dimanche 25 juillet il y a de cela une semaine exactement le ministre de la santé et de l'action sociale disait ce qui suit nous avons un stock de plus de 1000 mètres cubes et avons commandé 35 centrales le ministre de la santé a porté ainsi un démenti face aux rumeurs selon lesquelles le Sénégal serait confronté à une rupture d'oxygène c'était dans l'émission Objection sur Sud FM donc Diouf Sarr euh, directeur hôpital bi bu mu weddee gaan bi ba pare Diouf Sarr def ci yokk une couche moom tamit mu nekk en position de force ni gaan bi dara ñu amuñu benn problème donc professeur Seydi di mu wax moo xam fan la ko jëlee waaye fii nii ñun on a tout fait on a tout bien fait bon léegi <laughs> documentaire bi documentaire baa ngi nii euh, tubaab yi dem ndeysaan xam nga tubaab yi rek hmm? parfois Euh, ñom suñu suñu bonheur parfois mu joggé ci ñom suñu malheur tamit parfois mu joggé ci ñoom. Euh, gars yi dem Macky Sall def comédie yom ci hôpital yi ne waaw hôpital Sénégal plateau yi tout est bien ne bon tout va bien. ok on va aller voir dans les hôpitaux il paraît que Macky Sall travaille bien dans les hôpitaux bon c'est quand même un président qui a tué 14 jeunes Sénégalais il est exemplaire dans le monde il n'a pas beaucoup tué quand même 14 personnes c'est pas beaucoup Hein? Il a seulement tué 14 Sénégalais. C'est pas beaucoup parce qu'on a vu au compteur des millions de morts pour Sassou Nguesso, un des meilleurs amis de Macky Sall d'ailleurs. Bon, il a tué que 14 personnes, c'est pas beaucoup. Ça, reste quand même un démocrate. Oui, oui, oui, ça reste un démocrate. C'est la démocratie à l'africaine. Bon, il faut accepter que c'est comme ça. Bon. Il a tué que 14 Sénégalais, c'est pas beaucoup. Bon, nous euh, avons comment le gars a travaillé dans les hôpitaux. Ils sont venus nous faire un documentaire. Je vous fais écouter ça. Je vous fais écouter écoutez ce documentaire chers amis la situation ici, elle est quand même très catastrophique. Médecin Moïwa. Après le professeur Sedi. L'île coule devant nos médias sénégalais. Et tout interviewé, donc il dit la vérité. Il dit la situation est quand même catastrophique. <laughs> Moi, professeur Sedi Lumouar. Diouf Saro Wediko, demande directeur hôpital de Wediko Tabit. La situation est catastrophique ici. De On est dépassé. On est dépassé on est dépassé la situation est catastrophique on est dépassé De leen de moom mooy les médecins voudraient bien euh, prendre en charge les malades mais le principal souci c'est au niveau du plateau technique. le principal souci les médecins voudraient bien prendre en charge les malades mais principal souci am moi c'est le plateau technique. Waouh boum une autre bombe sur la tête de Diouf bam. Ah non, il ne va pas s'en remettre. Il ne va pas s'en remettre. Bolen de Goulmagini de traduire. Nena, la situation est catastrophique dans leurs hôpitaux, au Sénégal. Nena, le pire, moi, les médecins veulent soigner, mais c'est un problème pour nous, à le plateau technique. Waouh! Moi, Bolen de je vais traduire. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous traduire. Oui, oui, oui, ne vous inquiétez pas. Bolen de traduire? il n'y a pas de problème. Continuez à partager doo leen raté dara ne vous inquiétez pas voilà boo leen déggul dinaa leen wax lu wax c'est catastrophique un scandale donc après ñu ngi bind ñu ngi bind quoi ah déglu je vous fais écouter ça la situation elle est quand même très catastrophique est quand même très voilà on est un peu dépassé le souci c'est que les médecins ils les médecins ils aimeraient bien prendre en charge les malades. mais le souci c'est au niveau du plateau technique. Longtemps épargné par la pandémie, le Sénégal a recensé plus de 60 000 contaminations. Les vidéo comme le reste de l'Afrique le pays subit une vague due au variant Delta que lire Il y a une sous-évaluation assez drastique de la situation. C'est le médecin qui parle. Ça, je vous le confirme. Ça, c'est même le gouvernement. Ils savent que c'est les chiffres qui sont donnés et la réalité, c'est comme deux situations diamétralement opposées. Même le gouvernement nous la situation à l'hôpital. Oui, c'est te état Sénégal nee état Sénégal On na ko un autre médecin qui parle après le professeur Seydi bon voici des menteurs attrapés la main dans le sac Djouf Sarr boo xam ne yàgg naa leen la il est attrapé la main dans le sac parce que professeur Seydi dafa wax mu weddi professeur Seydi un spécialiste parle mu jël ay médias sosal ko comme ni ñu may sosalee keneen ak keneen wax ñu sosal leen directeur hôpital bi sosal ko kooku tamit génn sosal professeur Seydi pour nëbb deug bi ñom ak Macky Sall ñu def une comédie bu ñu def ci hôpital yi tubaab yi dem ñu ne xaar nañ ñu def ben documentaire xol Sénégal hôpital yi nu mu démé tubaab bi ne musibe lañ fa fekk. bravo Macky Sall où sont passés nos 1000 milliards où sont passés nos 1000 milliards demandez ça à Macky Sall où sont passés nos 1000 milliards bu ma dites di né on a affaire à un chien vous me dites non c'est une institution mais mu institution. Ils ne respecte pas vos droits Ils di sàcc 14 jeunes sénégalais di mettre kilifa dîner sur écoute 24 heures sur 24. de conspirer contre le peuple indien, ñu ñàkk boo xamante ni moom moo di cimetière vous me parlez d'institution vous respectez un criminel de la république Vous respectez respecter quelqu'un qui est prêt à vous tuer vous parlez encore de respect c'est un instinct de survie Vous ngeen tourner contre mon boo comme ko mune ray ngeen parce que c'est de la légitime défense. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. pour mâcher mes mots, pour caresser Macky dans le sens des poils. Non, moi, je suis honnête. Je dis ce qui est dans mon cœur. On a affaire à un criminel. Ah non, je vous dis la vérité. Que vous l'acceptiez ou pas, ça reste la vérité. Hein. On a affaire à un criminel sanguinaire. Donc, Wadi, euh, la main dans le sac.

direct bi ak père ba laa ko defee direct bu am am am solo direct boo xam ne père ba dafa ñëw dëggal lépp lu may wax ci ethnicisme Macky Sall ci état ethniciste état ethnique bu mu bëgg installé au Sénégal léegi ñoom à chaque fois seen logique bu ñuy def mooy ñeneen ñi sof ñun dañoo ne ñetti ministère la ñu épinglé ci ñu sàcc xaalis mais ci ñetti ministères yu amu ci benn parent Macky Sall boo xamante ni ci ay ministère ju mais mais mais kii kële Mansour Faye jàpp ñu ko fi mu sàcc ay milliards Mansour Faye lutax tax bokk boolewuñu Mansour Say si journaliste yi ñetti ministère yu ñu doon wax sàcc yi foofu lañ nekk benn mbokk Macky Sall doo leen ko mës gis prison doo leen ko mës a gis si ku ñuy traité de sàcc doo leen ko mës a gis si ku ñuy traité d' avoir d' avoir pillé le pays man ñetti ministère yooyu duma leen cité parce que seen logique ethniciste bi moo leen pousse ñu nëbb yeneen yi bu ñuy wax dañuy wax ci ñëpp ñu sàcc moi je ne vais pas faire la politique de Macky Sall ñëw di dal ci kaw ñetti ministères yooyu ne ñetti ministères yooyu Ils ñooy sàcc ana yeneen ñi lan moo tax ñu nëbb ñeneen di feeñal ñoo xamante peuple bi pour ñu jàpp ni ñoom ñooy mais eux ils sont propres moi je ne parle pas de ces trois ministres là je ne parle pas de ces trois ministres je ne parle pas d'eux parce que il y en a beaucoup plus d'autres qui ont maintenu dañ leen moi je ne fais pas la politique de Macky Sall dans ce pays moi je ne fais pas la politique de Macky Sall Macky Sall ethniciste là Macky lépp lu muy def mooy jël armée bi feesal fa ay mbokkom généraux yëpp mu def leen ay mbokkom jël gendarmerie bi généraux yëpp capitaine yi yëpp ñuy nekk chef yëpp mu def leen ay mbokkom jël police bi la même chose recrutement yuy am yëpp muy jël ay nit ñi nga xamante ni yenn saa yi Mauritanie la leen di jëlee naturaliser leen jox leen nationalité sénégalaise pour suba bu ne tirer leen ci kaw population bi ñoo ñu tirer ci kaw population bi ñun on a ces informations là depuis plus d'un an depuis plus d'un an maa ko koy ñep ñëpp diaboliser ma ci réseaux sociaux yi yo ya bëgg a taal Sénégal yow yaa fi bëgg a andi problème mu xeet Macky Sall di def ñep diko gis ku ko wax ñu ne la da nga bëgg taal Sénégal mais sénégalais ñun lan moy suñu problème parce que du man ma nek di agir du man ma yor nguur di installer un état ethnique ñepp xam ko ba paré boko tuddé ñu ne la da nga bëgg taal réew mi ku koy def nak do leen ko wax mu arrêté ku ko tudd ngeen né ko da nga bëgg taal réew mi waaye ku koy def moom mu ci continuer ngeen koy protéger parce que sen silence bi daf koy protéger depuis plus d'un an depuis plus d'un an ma koy yuuxu ñu jaboliser mu ci réseaux sociaux yi boy bi dafa dangereux moom mo bëgg indi affaire ethnie Sénégal té Macky Sall di doxal ñepp di gis nëbbatuwul muy def ñepp di gis léegi bu ko commencé dénoncé policier ak gendarme yi commencé nañ yew ñu ma doon woow tey naan ma kaay soof li nga wax yeb dañ ko gëstu kaay li nga wax c'est très dangereux et on l'a remarqué bala nga wax ko personne ne s'en doutait mais bi ko waxé ba légui ñun ñi dañoo dem xol sante suñu chef yi di xol ki nan la tuddu chef li lan la tuddu police ak gendarme yi dañ ma woo ne ma kayis foofu da nga wax lo xamanteni da ngeen fi wax yu ak père ba lo xamanteni Sénégal la ngi tak parce que njëkkete deug la té kenn xamu ko woon ma ne c'est ça la vérité di ngeen ma sans m'écouter mais il faut m'écouter d'abord ngeen xam lan moo ma wax ko fan la ko tek. ma leen waxee fan la ko tek ngeen vérifier ngeen gis ni du deug. ngeen ñew dal sama kaw mais li ma leen wax lu nek dem len vérifier ji dem len vérifier ñan ñoy ñan ñoy yor les postes clés du Sénégal ay mbokko mako yor ay mbokko mako yor Abdoulaye Daouda Diallo mo verrouillé ministère de l'intérieur est-ce que vous ko Alim est sous surveillance Alim Ngouille est sous surveillance man vous leen ko wax tey dama leen laaji ay mbokkam comme Alim Ndiaye Alim Ngouille est libreul de ses mouvements Abdoulaye Daouda Diallo daf ko mettre en résidence surveillée Alim Ngouille Ndiaye boo ko waree seet demander autorisation Macky Sall pour ay nit mën ko seeti jamono bu fa que Abdoulaye Daouda Diallo moo donné une wax ay décision en tant que ministre de l'intérieur ils ont verrouillé le pays def ko un pays ethnique jël ñëpp écarté leen wóoluwul kenn ku dul euh, Bruno Diatta rey ko pour mën a doxal ethnicisme boobu biir Bruno Diatta éliminé ko ko euh, juge Samba ci ñoom la mais dafa dem ba ci biir retourner contre ñoom ñu rey ko dañ ko empoisonné ak 24 heures après poison bi day sey ci sa yaram mais buñ ñu la defalee prise de sang dañuy gis ni sa direct, c'était contaminé avec un poison mais ce bir yaram bi poison bi day sey ñu rey le juge Samba Sall parce qu'il avait refusé d'emprisonner Ousmane Sonko ñu fexé yakamti corps bi dak ay mbokkam ne jël leen corps bi dem leen souli ci ko direct mbokk yi sax amuñu droit xol bu baax corps bi ñu jël corps bi yépp taf tafé ko jox ko mbokk yi jël auto duggal ko ci auto jël ay motard tal ko ne leen dem leen souli ko moo magistrat yi méré Macky Sall ba légui xamnañ ni mom mo rey euh, mom mo rey Samba Sall magistrat sénégalais, yi lan moo ñu méré lan motax tax Macky Sall amul kuy remplacer Samba Sall parce que magistrat yépp xamnañ ni Macky Sall moo rey Samba Sall ma jox leen information bi tay lan motax il a un problème pour nommer quelqu'un pour mu continuer enquête yi pour ñu japp Ousmane Sonko c'est parce que magistrat yépp Sénégal dañ ko méré dañu xamné mom mo moo rey Samba Sall c'est lui qui a tué le juge Samba Sall di tux ay borom nak saa yu meree mu Malboro tux ne lan lay xaar bu japp Sonko ki ndax dina am sañ-sañu Sonko di tal marboro di c'est pas possible puisqu'il fait il fait le malin il veut se retourner contre nous, mu empoisonné ko empoisonné xam nañ ko ci famille Samba ko empoisonné ci famille la yondi nit pour mu on a beaucoup d'informations dans ce pays là mais jour dina am bo xamanteni ni dinañu révéler lépp biir famillom comme euh, Bruno Diatta biir famillom la ñuy yónni ay nit bu lay empoisonné ñu ray ko ñu mu la comme Alassane Ouattara lu mu nekk di def ils empoisonnent les gens dañ lay lek loo nga dee moom lañ def Samba jël len vidéo bi ngeen envoyé ko parents Samba Sall yi laaj leen yan circonstances lañ suulee Samba Sall ndax presque xex mo amone ci hôpital gay buñu yi discours bi sax gay ne non jël leen ko gaaw yóbbu leen ko ban ban mor ngeen gis levée de corps autorité bu ñuy taf tafé noonu mbokk mi sax indi leen problème bu rëy ne leen doo leen ko gis taf tafé ko jox leen ko dugal ko ci auto corbillard moto yóbbu leen ko suuli ji leen ko. hôpital bi sax levée de corps def ko cérémonie ils n'ont pas permis ça à la famille jël leen vidéo bi ngeen dagg ko yóbbu ko parents ju sa massa li ngeen ne ndax li may wax ni bu dee fenn la nañu génn weddi ko. On a beaucoup d'informations dans ce pays-là. On a beaucoup d'informations dans ce pays-là. Il a tué le juge ambassade. Il a tué le juge ambassade. Ah oui, oui, oui. mais ay des gens qui préparé pour contredire ko même ay propre mboko ñu nous bu ko wet bu ko contredire daf leen di assassiné leen prise de sang juge Samba Sall bu mu décédé bo len ko défarone prise de sang di ngén xamné dañ ko empoisonné mais ils n'ont pas permis ça ils ne vous ont même pas donné le temps pour ngén def autopsie ngén xol lan mo ray le juge Samba Sall ils vous ont même pas donné ce temps là dañoo taf tafee corps bi jox ko famille bi ne dem len souli je mets ma main à couper billahi na famille juge Samba Sall génn wéddi limay wax ni dañu génn yan circonstance la la ñu yóbbuwee corps bi wax naa leen depuis un depuis un an maa koy yóoxu bàyyi leen nit bu deewee Sénégal ngeen taf tafe ko yóbbu ko état bu la ñu amal affaire bàyyi leen nit bu deewee Sénégal ngeen ne yàllaay reye nañ ko jël dem suuli ko yàgg naa ko wax waaye duñ ma dégg duñ ma déglu parce que daf may diaboliser pour ngeen bañ maa déglu lima wax mu diaboliser ko ay fake news lay joxe day fen day mais toglen, vous allez vous allez toujours regretter parce qu'on pouvait anticiper sur beaucoup de choses on pouvait anticiper je vais vous expliquer une affaire Si vous ci affaire de mairie Makisal, la Macky Sall bo <clears throat> mu repoussé élection locale ba moment c'est parce qu'il y avait une raison Macky Sall dafa bëgg meeroom mi exploitation pétrole parce que le budget mairie il y aura des taxes d'exploitation sur le pétrole Saint-Louis mairie Saint-Louis il a am milliers d'euros wala ay millions de francs CFA wala milliards il y day yok ci budget mairie euh, mairie Saint-Louis parce que Saint-Louis offshore buñ ko commencé exploiter mairie bi day am ay retombées de plusieurs milliards yo xamanteni day dugg ci keesu mairie bu Saint-Louis Rufisque pareil Rufisque offshore Rufisque buñ ñu commencé exploiter pétrole bobu day am ay milliards yu dugg ci keesu municipalité bu Rufisque motax tax Macky Sall boo leen xoolee Guédiawaye Rufisque yoy mu def len découpage administratif pour yokku yokku lo xamanteni ni dinañ ko ramasser ci ay taxes légui nak lan la bëgg ay nitom gagné fa forcé parce que dañoo wara nek nekk dañoo nar ay milliardaire buñu commencé di exploiter pétrole boobu municipalité yoy dañuy am xaalis bu dul jeex buy dugg ci sen caisse mo taxone mu repousser élection repousser ko repousser ko bo leen bëggé ray Macky Sall complètement ci Sénégal ne ñëpp dem uti ay carte d'électeur lu leer na leen expliquer boo gisee mu def découpage administratif bobu noonu c'est stratégique dafa bëgg remporter localité yoyu parce que maire yoyu dinañ am budget bu takku bo xamanteni ni Macky Sall soxla nako satch pour préparer élection 2024 déggoo leen ma dé déggoo leen ma dé continue len di naan fake news continue len yéen vous pensez que les sénégalais sont fous xam nañu kuy fen ak kudul dul fen ku sensé ak ku sensé wul ku len di wax wax bo xamanteni ni na mana ak ko xamanteni ay waxu dof lay wax vous pensez tromper les Sénégalais Nous bagnons des gloukaïs sauf. Vous pensez pouvoir tromper les Sénégalais Bagne des déglou. Non, des fans, nous mouillons, vous garou déglou. Vous pensez tromper les Sénégalais Non, ils sont encore là. nous nañ du fenkat moy wax ñom. Donc Macky Sall mu ngi préparer élection 2024. Jël na xam fi ay nit té dinañ génné sen ay tour. Ño xamanteni dañoo jël ay des Mauritanien ci diaspora à commencer par France jël ay mauritanien jox leen nationalité sénégalaise pour élection locale yu nekk di am yu nar a ñëw am bientôt ay mauritanien ay mauritanien ak ay guinéen dañ leen jox nationalité sénégalaise pour ñu voter à la place de vous yéen ñi nga xamante ni seen carte dañ fay bind non votant ñoñu dañuy voter à votre place fi ñu ngi récupérer ay carte mauritanien ay carte guinéen Yo, xamné dañu leen nek di jox nationalité sénégalaise pour ñoñu ñeu voter élection locale pour Macky Sall lu leer laa ngees bi te ñooñu ñëpp sama chaîne YouTube bi KS Fof TV dina fa révéler sen ay tour ñom ñep bourrage yi ngeen nekkee ci élection yeen ñep dina génné sen tour jox nañ ma liste sen tour yëpp yeen ñep dina leen vilipender ci sama chaîne YouTube bi KS Fof TV donc vous êtes en guerre avec le peuple vous êtes en guerre avec le peuple une guerre avec yéen ba mu sap donc ça gars comme ni ma ko on est en guerre contre un criminel un sanguinaire bu tudd Macky Sall bo xamné amul ben éthique amul dignité gëmul Sénégal gëmul démocratie c'est un fou Il xamné ne mu ngi def documentaire de propagande pour sénégalais bab sénégalais pour 2024 ñu falaat def documentaire bo xamante ne mom ay réalisation la fay wax yo documentaire bo wara defal sénégalais moy génneel ñu ay duul yo le sénégalais Macky Sall je sais que tu es en train d'écouter cette vidéo Yo documentaire bo wara def moy génneel ñu ay vaaru duul yo duul sénégalais ñun am nañ ko ñun soxlawul ñuy sa documentaire pour xam lo def Sénégal xam nañu buñ ñu yéwé si nelaw à 5 h du matin ñu wax la fen yu tang yépp yo fen sénégalais ay million un million d'emplois di je ferai 5 ans fin non finalement constitution bi mayu ma à à ans laa mën def du ma troisième mandat tey ku wax Macky Sall amul droit def troisième mandat nga dakh ko di préparer troisième mandat ñun dañu le documentaire pour xam tu es un menteur tu on va te démasquer dans ces réseaux sociaux là tu vas voir Les réseaux sociaux lay tu vas voir toi à quelle jeunesse tu as fait nous on n'a pas peur de toi on a pris toutes les garanties quoi que ce soit qui m'arrive Macky tu seras tenu pour responsable ça le monde entier le sait dem naa ci organisation internationale yi fépp bàyyi naa fa sama tour ne leen bu ma dara daree rek Macky Sall ma toi et moi c'est la guerre tu n'as pas affaire à un fou hein. boo xam ne day bàyyi boppam nii di dox nii non si tu me touches il m'arrive quoi que ce soit ñëpp dinañ jóg indexé la ah oui oui oui oui on a pris les gages ñu ngi Europe te jàng nañ xam nañu <laughs> affaire yi nu muy doxee donc du xaar ba nga rey ñu ñu perte xam nañ ni assassin lañu amal affaire reykatu nit nga de sang-froid ah oui oui oui on sait que tu es un menteur donc def documentaire fay ci ay milliards ne da ngay ñëw nax sénégalais yow yaay kan bëgg Sénégal fi 2035 tu te fous de la gueule déjà yo dans ton rêve même si on te réveille on te parle de 2035 tu dois te chier dessus 2035 toi toi Macky Sall 2035 avec nous tu te fous de la gueule de qui toi yo ñu nak yow ba 2035 ça se trouvera que Kaïs dee déna non il faut que nga Kaïs bala pour yow nga mëna tok fi 2035 toi es malade Yo, 2035 Non, mais attends. Ils se foutent de la gueule des gens, les gars, là. Wallahi billahi. Donc, ça m'a gagné. Nous sommes le faire un direct de Goudou Torop. Nous sommes allés abonner à la chaîne YouTube de TV. les toutes les révélations. Nous sommes allés les un direct. Nous sommes allés faire la chaîne YouTube de TV. Donc, vous allez faire un direct. Nous sommes vous abonner à la chaîne YouTube de TV. Parce que sinon, nous sommes allés faire un direct sur Facebook donc abonnez-vous, parce que buñ ma censurer fi YouTube bi moma ci doon guenné donc ma ngi am ñaari yépp diko alterner pour que buñ ma censurez fi ma mun wax feulé buñ ma censurer YouTube ma mun a wax Facebook donc ñun jeu vous lañ nekkee ak ñom di dakhanté parce que bëgguñu kenn wax Sénégal nous on va parler dans ce pays là nous on va parler par amour pour ça oui ce drapeau là par amour pour ça nous on va parler jërëjëf sama gars yi ñi ko partagé yëpp maa ngi leen di sant gërëm leen les milliers de supporters de Kaysof maa ngi leen di sant di leen remercier bu baax chaque jour di leen ne combat bi ñun ñoo ko bokk rek nañu concentré waat ci objectif bi combat bi du ñun peuple sénégalais bi di xasante suñu biir ah, di xeexante suñu biir du loolu mooy combat bi on a un ennemi boo xamante ñun ñëpp dañoo war a boole suñu doole ñu wàccee ko rapidement le plus rapidement possible oui dañ ko war a wàccee on a un ennemi bo xamanteni une bête qui va nous dañ ko wara attraper ñu mettre ko hors d'état de nuire à ce peuple là donc on a un objectif bien précis et très bien défini bo xamanteni tant que atteindre ñu ko on n'a pas le droit à la distraction donc réseaux sociaux nak nag wax commencé na retrouver tuñu mais les vrais resteront toujours vrais ñepp ñi nga xamanteni ci biir xex bi égaré wu nañu ñu ngi leen nañu reprendre euh, sen bopp ñu nekkaat ci xex bi quoi parce que lolu moy lu ñuy taal suñu ay Facebook di wax ak peuple bi c'est pour informer peuple bi c'est pour mener résistance contre Macky Sall en tant que général je remobilise toutes les troupes yu nekk ci Facebook bi di def liggéey bu nice mais bu ñu égaré wu parce que xex bi da ngay dem ba ci biir rek après do xamati loy xex ah tu tires sur tout ce qui bouge on a un ennemi man Sof depuis plus de six ans Ben nit ki la top xam ko comme ma propre main xamni un criminel un assassin c'est un terroriste Moui Macky Sall la nek di viser depuis plus de de six ans te combat bi musul nek combat contre Kenen. contre moom voilà donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di souhaiter une bonne soirée à bientôt Inch'Allah. Pour bu leen fàtte abonné wu ci chaîne YouTube bi merci beaucoup